damay dégg toujours ñuy wax naan APR ñoo ko faloon ak ñoo ko nommé woon ak ñoo ko karee woon dama ne APR dama ne ñi fi dugg tey ak ñi fi nekkoon a yem képp. ah, ah fëgg dënam ci biir APR. ku ne. Macky la jox doole jëgee fëggee sa dënn. kuy fëgg dënnam ku nekk ci biir APR naan man la. bu doon yow dong Macky Sall du Macky Sall ay nit ñoo ko fal am mbooloo ñoo ko fal ay nit ñu engagé wu ci fu nekk ci seen doole yi ci seen alal yi ci seen man yi ci seen xam-xam yi ñoo engagé wu ànd ak moom gëm ko ànd ak moom indi ko fii fas yéene waat ànd ak moom gunge ko ba keroog fa muy wax ne fii laay mën taxaw. kon maa ngi leen di wax ne leen na xam ne kenn gënul leen a yey tey ci APR gannaaw tey. kenn gënu leen a bokk tey ci APR gannaaw tey kenn gënu leen am sañ-sañ ci lépp lu ñuy wax wala lu ñuy def ngeen fekkee ko ci biir APR gannaaw tey yéen a ñëpp yéen ci yem képp yéen a président Macky Sall bi nga xam ne mooy patron wa APR yéen a yem képp tey ci APR li ko ci war moo leen war lim ci war a def moom ngeen war a def mooy defar mooy baaxal mooy jubal mooy walloon yeenu njub mooy wal leen fan lañ war a jaar ba jëmale réew mi fii nit ñi nit ñi di xaar loolu ko war moo leen war yéen kon yéen a ci yem képp gannaaw bisab tey maa ngi leen di wax ne leen mbootaay yi ngeen jiite fulla yi ngeen amoon ba karee ko fulla jooju bu nekkaatee ci yéen da ngeen jariñu ci politique parce que parce que yéen yéen a fexe ba karee seeni groupement de di ko liggéey fulla jooju bu ngeen ko continuer kenn mu tëje seen àq yi dama ne politique amul secret politique amul lu ñuy wax ci biirum néeg politique daal dox la ak wax ak jëflante jaami yàlla yi ak dimbalante ak nit ñi ak di leen wax dëgg ak di leen teg ci yoon bi nga xam na suñu patron moom la xal ñu jaar ci ànd ak moom nañu fexe ñun tamit ñu jaar ak yéen foofu buñ ko defee kenn du xeeb sa morom ci ànd bi maa di wax ne leen APR kuy wax naan APR dafa taxaw wala APR doxatut wala APR dafa manqué yaakaar naa boo amee ay nañ seen ndaxte tranquille wala amul looy jëfandikoo parce que parce que APR fa mu nekkoon démb ak tey ak fi mu jógee bi defee ak tey ku jàpp yaakaar ne mën ngaa taxawal APR ci te trop. personne personne mu tëddee motoru APR personne tey jii la APR dox tey la APR gën a yaatu wante am na bugguma dugg ci yenn détails waaye dama ne ku amul fukki nit boo toogee na yaafal Macky Sall xam nga dina trompe. am na ñoo xam ne ñoom reconnaître nañ seen bopp na amul base waaw ku amul base politique nooy waxee ne yaafal ak yaafulee ak parti doon ak parti doxul ku amul base waroo wax ci affaire yi farak fool lii boo amee xam-xam nag ñi koy ñi koy rafetlu boo amee xam-xam ñi koy rafetlu waaye farak fool li moom bul ci wax. parce que yow mënoo folli mënoo folli ku mu defal mënoo folli nag waroo wax ci affaire parti buy dox ak parti bu taxaw loolu waxu caaxaan la nañ bàyyi seen caaxaan yi nañ bàyyi seen fawda du fawda mag du mbégee dama parti bi APR ñoom ñi jàpp na ñoo koy doxal nañu wootewaat suba combat suba ci suba nañ wootewaat suba ñu teel combat su boobaa danañ bi nekkul seen loxo. xam nga li mu war a xam mu leer. xam nga politique. politique am na ñoo xam ne amul ñaari nit. ñi fi nekk ci ay tur la ñor ay slogan tur. ñu koy respecté ñu koy respecté yàlla ku nekk ak lam la may. waaye du ñoom ñooy wax mbooloo mi li ñuy def. du ñoom mbir mi nekkul seen loxo. mbir mi mi ngi nekk ci loxol yi tee yi. ñi téye base nag dégluwuñ personne ku dul président Macky Sall dañ ku nekk soo amee loo bëgg wala soxla. amal fu laaj fay da dem ba nga xam ne moom la yàlla dogal tey ndogal yi nekk ci loxoom nga wax ak moom ci yar ak ci teggin. waaye bul yaakaar ne man ngaa def dara wala nga wax dara loo xam ne man naa tax nit ñi bouger wala nit ñi nga yëg doo dara sama xanaa mi sa kaw bopp mun na ko yëgal. nañu fexe nañu fexe nañu fexe yar ak teggin ak dal gi nekk suñu leader nga xam ne ñëpp a nangu ne yaram ak tegginam moo ko indi fii mu nekk nañ leen fexe jikko jooju ñu àbb ko ci moom doxe parti bii di APR ku xam ni muy doxee xam ne ni foog nen moo koy doxal doxal parti bi président Macky Sall moo ko téye te yéen xam ngeen li may wax ñi yor base yi xam nañ li may wax xam nañ ne ñii tee base yi ci biir ci biir département yi dégluwuñ personne kenn mënu leen a bouger loo mètre pour président Macky Sall ku nekk di wax di wax ba marta